ñoom sa njooro ginnaaw ba ñu defee ni nga xamante ni moom mooy le levée du corps euh, fële ca hôpital militaire de Ouakam donc waa Sénégal ñu koy rendre hommage solennel en l'enceinte de l'hôpital euh, militaire de Ouakam mais également euh, fële ca njooro fi nga xamante ni moom mu nekk sa dernière demeure effectivement en tout cas témoignage yi moom day wane ne rek dañuy dañuy lenn la ñuy mën a bu ñu sukkandikoo ci témoignage dañ naan baax la mhm. parce que gis témoignage yi c'est unanime ci nga xam ne moom mooy nit ki nee nañ foo ko gisoon mhm. li nga xam ne moom ay bëñam mhm. euh, ngay njëkk a gis loolu wane na exemple bi mu taxawee assemblée nationale devant les députés mhm. en tout cas doon li nga xam ne mooy comme rek ministre bu ne ni mu koy defee ñoo taxaw wax député yi Mm-hmm. Euh, ba mu paree gis nga ndeysaan standing ovation moo amoon di yëpp dañoo jug di mm-hmm. wax ak ñoom naan leen vous allez ma manqué di reetaan am na ma gis benn jege ñaaleem mm-hmm. euh, mu ne vous allez ma manqué boobu ab ab code la joxe <laughs> jox ndeysaan par rapport li gën àddina tax muy moo tax muy wax loolu en tout cas daal CD yi euh, benn la xam ne moom mooy Mamadou Moustapha Ba c'est c'est c'est très émouvant démb ay mbokkam sax ñoom nee nañ dañoo yéemu ndax yaakaar nañ ne di en tout cas à part euh, euh, d' après li xew ak d' après rassemblement bi xam nañ ne kon kii di Mamadou Moustapha Ba nekkuloon rek kon seenu nit. Mm-hmm. wante nitu nit ñi la woon waaw gis nañ ne kon kii di mm-hmm. ñëpp la woon ko li nga mm-hmm. xam ne moom mooy levée du corps ba hôpital militaire Bocampo mu tag ñu defal ko en tout cas bépp boo xam ne dinañ ko defal koo xam ne sa doomu réew. jël li nga xam ne moom mooy drapeau national rangal ko lii di cercueil bi. en tout cas gunge ko kon fi nga xam ne moom mooy Nioro euh, ci dernière demeure am mhm. état bi ki nga xam ne moom mooy ministre du budget mhm. euh, di en tout cas Diba euh, moom moo fa teewaloon li nga xam ne comme état ànd ak tam ministre des forces armées kon mhm. euh, nañ ci li nga xam ne moom mooy boobu en tout cas événement bu bu tiis kon gunge ko kon ba li nga xam ne moom mooy kër bu mujj dëgg kon daal dañuy en tout cas joindre ci li nga xam ne moom mooy sentiment de prière rek di ñaan moom mi nga xam ne mooy euh, Amadou Moustapha Ba yàlla yërëm ko. Mhm. bajal ko mboolee mi bakkaaram xare ko aljana ko niñ ko ñaanalee rek euh, chérif bi nga xam ne it mu ko. C'est important Coumba Ndoffène donc feu Moustapha Mamadou Ba repose ainsi fële euh, ca Nioro